Thiam yegg si na ci yóbbalu bés bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Haji Babacar delloo naa la nuyu bi ak ziyaara bi. jërëjëf oustaz aywa. waaw Haji Babacar yóbbal bi tey jii dafay ñëw ñu joxe ko ci benn saar mooy suuratu Qurayshin mooy saaru li ilaafi Qurayshin xaj Babacar Sarr bi boo koy xool ci téere bi fi mu toll mooy téeméeri lu saar ak juróom-benn muy cent six cent sixième saar la boo xamante ni bi képp ku nekk ci sa palaas nga fay liggéey te bëgg sunu borom di indil ay client yoo xam ni lépp li nga soxla ci liggéey bi ñooñu danañ la ci jàppale client yoo xam ne day doxal liggéey bi nga jël saar bi jël une semaine boo xam bis bu nekk. nga jàng saar bi téeméer bu manqué juróom ñett bu manqué juróom muy quatre vingt soo ko jàngee quatre fois moom saar bi lii laa fi Qurayshin ba mu jeex quatre vingt nga teg ca baat yi bis bu nekk boo ko jàngee quatre lii nga ci teg allahumma inni as'aluka alxayra kullahu ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم لول غاي واخ جينا بوكو جانغي 92 فوا حاج بابكر ديرجيف استاذ مول يندوك جام لك دانيو غيسي وات ak yow euh, ci geneenuk yobal ci rfm euh,